bëgg rek ñu seq réew mi xam ne réew dañ ko war bokk defar waaye waruñu ko bokk yàq wala ñu siitaan ko loolu waral woote bi mooy fukkeel bi ak juróom-ñeent ñu woo ñu ko seqal ci diine ji ndax réew mi diine la ñun ñëpp bokk teew ñu waxtaanee ko ak borom xam-xam yi nga xamante ni seen xam-xam kenn du ko nattal ci àdduna ngir eh, jàmm moom dee su ko wax dañ koy jëf ndax ku jëf jàmmam jàmm waaye ku jëf jàmm doo ko doo ko mën a am. bu baax sarax la. kon képp ku mën wax bu baax na nga noppi yàlla subhaanahu wa taala jàngal ñu ci Alxuraan ginnaaw nee nañu ay way gëm la wa quulu linnaasi xusnan dee leen wax ci nit ñi lu baax kon nit day wax ci nit ñi lu baax gis nga ko jug di wax ci nit na su dul noona moo ko yées ndax man su ma bëggee wax ci naka sul noonu damay xalaat ni la ci la ca moom li ci mën ko yées kon su ma xoolee sama ayib yonent bi nee na kenn ku ne sa ayib war naa doy si ayib bi jàmbur kon réew mi nañu nañu wax ju ñaaw ji baaxul kenn du ko yoreem am réew kenn du wax lu ñaaw ba ñu fal la ndax ku wax lu ñaaw dañ li mujj sax jib te wax ju ñaaw ji bari na jëf ju sew ji bari waaw loolu damay faral di wax ni gis nga ñetti nañ ko bàyyi xel daanaka moom daanaka moo xawa a symboliser sans politique bi di vol viol violence maanaam gis nga nit day jub nit it jigéen ji ko lewul na ko fa baax dafa xaraam du éthique du jikko ba ca desaat it lépp loo xamante ni euh, violence la na ko bàyyi ndax réew mi tëluñu ko ndax la mësi parti amuñu dara fi mu ne nit ko amul lu ma reere boo ko indilee coow ray nga ko politiciens yi lakkal nañu nit ñi huit huit huit sonal nañ ñu wax dëgg yàlla ci wax ju ñaaw ji ak jëf ju sew ji ak jëfante ko te lépp intérêt crypto personnel dong ko waral bu ñu njëriñu réew mi ne waaw waaye koo ci topp ba mu sës bu wéetee wax ak moroomam man moom doon xuloon te ñëpp xam nañ ko nag dañuy defee ni ñi ñu jiite yeewu ñu fekk ñi ñu jiite leen raw dëgg gi ñoom ñu ko maanaam responsabilité partagée la hmm. dafa am loo xamante ni wàllu religieux la maanaam kilifa diine am loo xam ne wàllu état la am loo xamante ni wàllu opposition la am loo xamante ni wàllu société société civile la am loo xamante ni wàllu ñun ñi nga xam ne bokkuñu fenn comme ku demee ne man bokkuma fenn maa ngi la mit nii bokkuñu fenn sañ nañoo wax ak ñëpp ndax lan réew mi dal ndax dalu réew mi ci lañu citoyen yi mën a dund mën a am jàmm man a xew mën a xewlu leen daal wóor ak su néew kon ñëpp la ñuy waxal état ne da dëgg opposition na doxal dëgg suñu kilifa yu baax yii ah nañ ñu ngi fàttali waaye nañu gën a fàttali ndax réew mi aaja fi ne nii taxawaay bu mat sëkk réew mi aaja parce que buñ ci buñ buñ ci jugul rek mu tàkk ndax wax jëf rek a ci topp wax ji rafetul wax nag bu rafetul bu jëf bi ñëwee gën a ñaawati politiciens nañu daal ku yàlla falul dofal kii kër maamam Cheikh Mamadou Fouti radiyallahu anhu loolu la doon prôné loolu la doon doxal mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dafa woo ñëpp ci jàmm wax bu kenn wax kaddu gu sa mbokkum nit waxuma jul ay mbokkum nit bu ko wax kaddu gu ñaaw man su ma déggee ku wax kaddu gu ñaaw damay tiit wala ku wax loo xamul damay tiit ndax lan dama xam ne xamul li muy wax moom parce que bu ko xamoon du ko wax lu ñaaw ni mu garaawee ak sos wala wax naka su dul noonu wala wax loo xam ne am réew mën na cee tàkk ko xam ne mu garaaw doo ko wax ndax jàmm kenn ku ci nekk suñu borom dafa ne wattaqoo fitna tan na ngeen moytu fitna ndax ay du yem ci bopp borom ay ka woo du yem ci bopp comme ñu ngi interpellé ñëpp suñuy jëf jàmm tey wax jàmm échéance yi ñu dem ci ku nekk am sa carte ku ku nekk nag fa neex nga nga wooteel te te bàyyi nit ñi jàmm rek xam nga ku mu neex man nga ànd ak la neex amul solo waaye na nga bàyyi nit ñi jàmm nag may nit ñi jàmm waaye saagante bi xuloo bi xasante bi jaayante doole bi loolu amul ñu amul njariñ maa fi nekk yaa fi nekk yi gën a wóor maay falu yaay falu gën a wóor te ku yàlla falu doo falu xool illahumma maalikul mulk jàng ngeen ko mhm. kon nañu teey te bañ a taal suñu réew mii tey waxante dëgg te yéente lu lu baax ndax yonent bi nee na alayhi salaatu wa salaam kenn du am lu kenn du gëm lu la nga yéene sa bopp da nga ko yéene sa morom kon kon ñu gëm bëriwul ñi koo xamante ne heure boo wéete yaa ngi yaa ngi jiw sa xas ko ndax gëm nga ba kon bëri na koy julli fekk gëmul waaw fi ne njàkk yi waaye ñu gëm néew bi waaad tey nen munafiqina fii darek li asfal min naar yàlla nen ñi gën a ñi gën a suufee gën a métti mbugg la mooy naafiq yi mooy ñaan gëm nañu ci kaw te gëmuñu ci biir nit dafay jub boppam mooy la nga la ngay la ngay fas wax ko waaye la ngay la nga fas waxu ko boo teewee baax boo demee ñaaw musiba la suñu mag ñu baax ni Cheikh Amadou Bamba Maodo li ñu amoon mooy civilisation mais civilisation moom moo tax tey ñoom fi ñu egsi nii ñu egsi ma mais civilisation bi dañ ko accompagner ak organisation mais ñun c'est dommage soo amul civilisation amoo organisation mais principe moom ngeen waxatu ko Sénégal moo tax pour ñu am dëgg ngeen xam ne moom ngeen di xeex ñëpp di ko xeex day jafe moo tax kon ñu nan delluwaat te nañ jël njàngale mag ñi dugal ko ci école yi mais coow li coow li parce que xale yi jëlatuñu njàngale mag ñi du va à l'école patati patata waxu sëñ Touba duñ ko dugal ci école yi ku ko jàng soo màggee nooy mel waxu Maodo Malick duñ ko dugal ci école yi bu konte keneen ak keneen ak keneen kon docteur li ngeen di xeex loolu na ci bokk Ibrahima na ci bokk parce que tant que loolu amul liñ bëgg Sénégal du am parce que yéen a ko wax xam-xam commencé na tumuranke kon nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci wàllu politique dangaa wax sànq yonentu moo dàq yonentu yàlla moom pour man politicien bi gën a mag mooy yonentu moom ndax nekk na màkk treize ans bu tax màkk julliwuñu wooruñu kun sàngara nekk sugu nga naan te mosu koo tere ndax su ñëwoon rek dana yàllaa ma yónni ñu bëgg ko duma su ñëwoon ne baleen seen yàlla yi baleen nangam nangaay créé ko waaye sàngara ma nga xaraamee Medina kon lu bari Medina lañ ko defee mais daf leen politique ba jariñ leen léegi nag ñaari façon politicien moo am politicien bi lay ndax ba jariñoo la ak politicien bi lay ndax ba jariñ la yéen da a bokk ci ñi ngeen ndax ba jariñ leen kon nañ góorgóorlu bu baax a baax mbir mi daal delluwaat ci yàlla yor jikko yonent yàlla Muhammad gis nga coow li coow li jikko yee yàqu yonent yàlla Muhammad benn jikko lañ ko tàgge wa innaka la xalaa xulxul asi waaye léegi nag na nekk ci ku nekk rek digg bi dox sëñ Tuubaa lan la wax dalaan yàllaaw ala muhammadin wa haadani muhammadin yàlla tegtal ko yonent yi moo tax sëñ Tuubaa kon ku ànd ak moom war a Maodo Malick lu wax ci yonent bi Baye Niass lu mu wax ci yonent bi xoolal mag ñooñu jël référence teg ko yonent yàlla Muhammad kon ñun suñu jëlee ren Sénégal dëkk yonent yàlla Muhammad dañ tegu ci yoon boobu rek dem tey valeur yi ni mu demee léegi dootoo gis yonent bi léegi li ngay gis mooy Iblis parce que saagante yi wax ju ñaaw ji jàppal bàyyi man la kii la du kee xastante yi mais loolu da ngay gis ne kon yonent yàlla ngi commencé moo tax am ngeen benn liggéey bu mag moo ni ñu indiwaat yonent yàlla Muhammad teg ci kanamu askan wi askan bi jub qui dit ci appelle à la paix qu'on est contre aussi toute forme de violence ce que nous oublions nous vivons aujourd'hui un pays où on a comme l'impression qu'il y a de la violence partout. Et ce que nous ignorons aussi, c'est qu'il y a une pluralité. la violence ne peut être appréhendée qu'au il existe plusieurs formes de violence. La violence la plus connue, effectivement, c'est la violence physique. Mais c'est celle qui consiste à donner, par exemple, un coup de tête ou un coup de marteau à quelqu'un. C'est une forme de violence. Mais ce n'est pas la seule forme de violence qui existe. D'autres formes de violence existent. C'est la violence aussi symbolique qui est aussi à l'œuvre. si le fait d'insulter. Et quand, quand quelqu'un insulte, s'il pense qu'il violente la personne insultée, c'est qu'il se trompe. C'est qu'il violente tous ceux qui entendent ces, pa pa ces, ces paroles ou ces mots qui relève du déconcertant ou qui peut déconcerter. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans ce pays, en écoutant, et il ne faut, faut, pas, faut pas penser que les, les seuls qui font qui mettent en œuvre cette forme de violence, c'est-à-dire symbolique, sont les politiques. Moi, je crois que c'est devenu un phénomène qui est en train de se généraliser dans ces pays et nous devons, nous devons l'éviter. Par contre, nous allons nous focaliser sur ce qui a euh, fait que nous nous sommes retrouvés ici. Nous nous adressons aux hommes politiques, même si cette adresse aussi est destinée à tous être humain est pris de paix et de justice. Le, la, le champ politique est en train de s'insulter sans le savoir. Puisque si des hommes qui partent à qui disent avoir les mêmes objectifs se tuent entre eux, c'est qu'ils se contredisent, se contredisent. Et toute personne qui se, met dans une position de contradiction euh, pose, pose, véritablement problème à ceux qui, qui l'entendent et qui l'écoutent. Nous, vous, nous appelons tout le monde à la paix. Mais les premières personnes interpellées, ce sont les hommes politiques. Ils nous ont promis qu'ils nous font croire qu'ils font la même chose, qu'ils parlent pour l'intérêt de la nation, mais cela doit apparaître dans leur façon de faire, mais aussi dans leur façon de dire. Alors que leur façon de dire devient de plus en plus déconcertante, dérangeante, puisque insultants. On ne les écoute pas. Ce que nous attendons de nos leaders, c'est qu'ils nous proposent un projet de société convaincant, un projet de société qu'on ne va pas définir par, euh, en recourant à la toute-puissance de l'injure, puisque l'injure n'a jamais réglé rien. C'est une forme de violence et il n'existe pas de violence qui n'appelle pas à une autre forme de violence. Et la meilleure façon de faire taire, de faire en sorte que ces violences ne pas parle pas que ces violences ne nous parlent pas, c'est de dire des choses, des choses qui collent à nos réalités, c'est de, aussi de dire des choses qui nous font avancer. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que, que nous entendons de nos dirigeants ou de ceux qui doivent nous diriger, n'augure pas la paix et ne nous montre pas la, la meilleure voie, ne nous montre pas la voie que nous attendons euh, d'eux. Voilà, je crois que en, en substance, c'est ce que je voulais dire pour faire la synthèse élèves de ce, cette réunion qui nous a réunis ici et que euh, Ibrahim Faye a bien voulu organiser. Et nous finissons par remercier Ibrahim Faye. Il, il, a bien fait de le dire. Vous savez, en matière de politique, les gens pensent que seuls ceux qui sont sur le terrain et qui se collent l'étiquette de politique ou de politicien, euh, euh c'est à cela que la politique appartient. Mais il y, a des, il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas qui ne parle pas, qu'on ne voit pas physiquement, mais qui de manière souterraine font de la politique. Et il faut quand même tenir compte de, de, de cette euh, frange de la population qui semble être miette, mais dont la, par, dont la parole peut être fatale, puisque simplement c'est souvent des gens crédibles, des gens qui sont écoutés et qui peuvent, s'ils le veulent, jeter le discrédit sur ceux qui croient avoir le monopole de la vérité alors qu'ils ne l'ont pas. Il faut que les gens se disent la vérité. Il faut que nous acceptons. Moi, c'est ma philosophie, c'est ma façon aussi de voir les politique pas, ne contredit pas la vérité. Mais pourquoi de plus en plus les gens ont tendance à faire euh, rêver, même en mentant, pour, en mentant pour, pour, pour, pour le pouvoir Je crois que le pouvoir, il est là. chaque citoyen a le droit de prétendre à un poste politique, a le droit de prétendre à être à, la, à la tête de la hiérarchie sociale. Rien ne, ne l'interdit. Mais disons-le, disons-le en disant la vérité à la population, en restant, en faisant la preuve euh, de la réalité selon laquelle on est des hommes véridiques, surtout que nous, en tout cas citoyens, ce que nous attendons, en tout cas de plus en plus des hommes politiques, politique, c'est qu'ils nous tiennent un discours euh, euh, de vérité, mais qu'ils nous tiennent un discours ré réaliste, qu'ils ne nous pas euh, rêver. On a tellement rêvé qu'on ne croit plus au horaire.